Euh, non par rapport ak xëdd bi ça dépend rek ça dépend mais man moom damay privilégier xëdd bi waaw même bu dee lu parce que journée gudd daal donc euh, foo ñu xëdd daal foo ñu xëdd. ndog bi damay damay ndog rek reer damay aku mulai ke tandar ma nan sama ruta aku juli semua pare juli aja cuma kali di minit tengah hari eta aku mana mau yang sini dia bata mit munna andogu munna andogu khar bu gudi gudi ay une heure deux heures ma lek bo wa du ma xëdd quoi non lay demee bu dee par rapport ak jour match moom moom moom dama ko woon dama koy leb par rapport ak jour match bi moom dama koy leb quoi parce que compétition la te euh, day day métti daal pour euh, pour euh, pour woor ci jour jour compétition donc boobu dama koy leb ba après ma fay ko je pense que loolu am na ñu bëri ñoo xam ne mën nañ ko comprendre mais jour match moom dama ko dama ko woor mais bu dee entraînement moom loolu du problème bu dee entraînement moom damay dama koy woor moom dama koy woor parce que def entraînement bi du du métti wala ñoom sax euh, coach yeeg yooyu dañuy xam ne da nga wóor donc dina am loo xam ne dinañ la ko dinañ la ko bàyyi donc euh, ñu ngi noonu daal. waaw par rapport ak weeru koor bi moom maa ngi ñaan euh, ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabbil alamin mu doon koor boo xam ne eh, daf ñuy jëriñ ñun ñëpp waaw yàlla defal ñu si xewal defal ñu si ndam may ñu gudd fan ak wér gu yaram waaw eh, lépp loo xam ne ñaan nañ ko fi yàlla nañ ko yàlla may yàlla nañu ko yàlla defal jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci àdduna bi yàlla nañu yàlla defal jàmm Sénégal yàlla na yàlla tàkk eh, feebar bi xam ne moo lëmbee dëkk bi may ñu jun jàmm ñun ñëpp yokk tawféex adiós.